dañuy wax mais gisaguñ image comme image ñu gis comme ça ñu bëree bëri pour ñu xam ba xam affaire bi carrément ci biir cor dafa fekk cor ci biir cortège bi la wala du ci cortège bi. non non nous on a déplacé avant le cortège. Uh-huh. voilà dañ doon dañ doon dem directement on était ensemble avec euh, El Hadj Mbaye Père. El Hadj Mbaye Père ñoo bu jiitu woon quoi sur les lieux. Uh-huh. voilà di tant président ñëw fekk ñu foofu. Uh-huh. voilà léegi ci biir en démarche euh, en cours de route. voilà la ñu dajee ak benn bis. benn bis ngeen dajeel. moo moo ñu dàq moo ñu dàq quoi moo ñu dàq si yoon bi. Mhm. voilà léegi daf ñu a à vive allure. Mhm. voilà donc par la suite poussière bi moo ñu moo ñu kii quoi fekk gisatuñu amuñ ko ñu fii. ok léegi juste kon dafa tombé ñu ñu ñëw si intersection bi quoi virage bi pour tourner. waaw. voilà oto bi dem dal si benn petit pont par oto bi këppu. ok oto bi këppu léegi actuellement yow yaa garde corps bi nest waaye maa gàddu koor bi waaw. ak chauffeur bi moom mooy kii beneen booy bi. waaw chauffeur bi mooy booy bi doon dawal. mooy booy bi doon dawal léegi yéen oto bi yéen ñaata ngeen woon ci oto bi. on était un nombre de quatre. quatre personnes yow ak Ablaye moom patron la wala oto Ablaye Mbaye Peex la. oto bu sëñ Baara la. ah sëñ Modou Baara Dolli waaw ok. yow waaw Mbaye Peex moom oto bi ñëw yëg si oto sëñ Baara Dolli. ok ngeen doon dem quoi. ñu doon dem waaw. ok yow kon xam naa waaw loolu laa bëggoon a xam rek man ma xam man maay nekk di faral di ay image sama yooyu. léegi ñu bëri biir dañ may woo pour information yu leer quoi loolu laa bëggoon a sukkandiku mais yow kon li nga wax mën naa cee sukkandiku quoi. j'ai compris voilà pourquoi ma jox la information bi lii moo fi am. merci jaajëf sax waaye fàttali ma tur bi. comme si dina ko jaajëf. na jaajëf. mën nañoo xam heure bi ban heure la. 14h45. ah 14h45 mais yéen boobu cortège moom jugagul yéen seen yoonu bopp ngeen doon dem pour jiitu ju président. ah ñun dañu doon jiitu président. Ah ah. parce que président si boppam moom moo yebaloon Mbaye Pekh. ok moo yebaloon Mbaye Pekh ak kan. voilà donc léegi ñun ñuy jiitu di dem mu Mbaye Pekh jël sëñ Modou ci. biir dem tuuti ñu doon dem noonu xam nga foofu yoon rang-rang bi bu jar kese la. Ah ñun nag xam nga comme kii fa la ñu àndal ñoom sax dañ doon Mm-hmm. ok voilà voilà man contrebande bi peut être bi nëbbuñu complètement amuñu woon fii ci kanam quoi. Mm-hmm. voilà chauffeur bi fi tànk muy ralentir si la ñu wàccee piste bi dem bëgg pont bi ba fa di këpp. ok voilà les quatre pneus yëpp en l'air. ok ñu la sama waa ji merci sir. merci.